إليك توصلنا بخير البرية فلا بد من شكوى إلى الله كربتي ما لي غير الله جابر كسرتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki jullit yi yi nekk fii ci jalsa bii nga xamante ne ci lan toog ak biir Louga ak lépp lu nekk ci biir li wër Louga ñoo ngi leen di nuyu bi taxiyatil islaam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu li nu dajale mooy gàmm gi nga xamante ne bi ci lañ doon màggal mawlid nabi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni ku yàlla bind moom la ko terale gannaaw bi mu ko bindee te moom la jëkk a bind moom la mujj yónni moom def ci moom loo xam ni def na ko ay malaayikaam def na ko mu santaane lenn ci doomu aadama yi war koo def mooy inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala annabi yaa ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman loolu moo tax ku yàlla màggal santaane ñu ay malaayikaam jullit màggal ko mu sant ñëpp ñu war koo màggal moom la doon màggal kañ la woon ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier bii nga xam ne jeex barki démb tey di ñaari fan ci weer ci topp ci lañ ko doon màggal mu nekkoon juróom benn fukki yoon ak benn yoo xam ni daje woon nañ fii ci Louga fii ci kër Mame Malick Sall la tàmbalee woon dem fële ca école bu canadien ba nit ñi daje fi jóge fa dem ci kër Alaaji Racine Mbaye radiyallahu taala anhum ñu di ko màggale foofa ba xajootul ci place booba ñu yóbbu ko ci palaasu jox na kon li taxoon ki ñu ko bàyyee loon bi ko Serigne Babacar Sy radiyallahu taala an fondé commencé bàyyi ko fi bàyyi ko doomam ja taawam ba Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha radiyallahu taala anhu moom it mu dem bàyyi ko ak taawam ba Cheikh Seydi Al Mansour Sy ibnu Seydi Mouhamadul Moustapha Jami radiyallahu taala anhu mu di ko taxawee ba ci jamono yii ñu nolu wax dëgg yàlla la taxoon Seydil Jamil dekkal ko jële ko ci loxoy papaam mooy na ñëpp àndal loo xamante. di ko tàmbalee ci autorités locales yi. ku mel ni monsieur le gouverneur de la région de Louga euh, teg ci monsieur Moustapha Diop ministre et maire de la commune de Louga ci teranga bu am solo bi mu indi euh wa ne danaka defar na gàmmu gi yeb. di sante madame Aminata Mbengue Ndiaye présidente du HCTT cant jëmale ko ci Madame le préfet du département de Louga M. monsieur le commissaire de police de Louga à tous les chefs de service départementaux de Louga Nous avons yëkkati cant de ci équipe Madame médecin euh, consultation gratuite euh, madame Louga assistance médicale avec euh, des étudiants Tijan. Nous avons des médecins association médico-sociale des talibé chers. di aussi hôpital régional de Louga di directeur général de la SPIA di aussi aussi qui famille famille El jili mbay Mbaye Soxna Astu Si Malick famille Adja Marie Dione Mafal Fall di opérateur économique famille Cheikh Tall Dioum euh, di sant Mbaye bu Sénégal Tour Papa Kodelo Kurel Jéewol El Hadji Ndiaye bu Njare Waqi famille Serigne Adi Diop Serigne Diop famille Dame Diop famille Samba khari famille Lo euh, commune et département euh, fondation mam Fawa Duwele daïra Moustarchidina wal Moustarchidat di euh, Ahlu Café di euh, waa ak di sant jamatu Ibaadu Rahman ñu teg ci sant cant googu daayira jigéen ñi ñuy lim muy daayira Adja Fat Joom Njaay daayira Adja Anta Sëy daayira Adja Paya Fay daayira Adja Asu Tandine daayira Maam Xari Fall daayira Adja Soxna séy daayira Soxna Aminata Sisoxo daayira soxna ajara Diop Ndiobène daayira Xuddam Femme daayira Adja Lawbe Mbubu Kébémer ak daayira Ndey Kébé Sidi bu njàng ganaaw daa euh, daayira yu jigéen yi ñu jàll ci soxna euh, waaw euh, ñu ngi sant aussi daayira soxna soxna Jaynaba Dia montagne waaw suñ génnee ci daayira yu jigéen ñi nag ñu jàll ci daayira union bi ñu góor yi ñuy sant waa Bël Guèye waa Njang Bamboj waa Kër Ngunta waa Mbuut gu mag waa Tobi Diop waa Caala Kebe waa Ñeem Cissé waa Ngana Kell waa Daara Diagne waa Kayib Dia waa Afeley Baxdaar Diop waa Palen Fall Yelel Lu Sil Busura Lo Njoobeen Belel Faas Lo kër Modou Xayta Ndaam kër Gris waa Jëmooy Gay daayira Istixaam El Hadj Mansour Sy waa Mbuut gu ndaw waa Guyaar Dieng waa Afe Dieng waa Yaruwaay Diop di sant itam xuddam yu góor yi xuddam om di sant daayira Jamil yi daayira Ahibaa yi daayira Ndànku Bey daayira Njaañ daayira Ngana Sall di sant aussi membre du bureau ak secrétariat yëpp yu fi teew di sant euh, kii euh, membre commission yëpp yi nga xam ne euh, participer nañ ci gàmmu gi di sant aussi union daan jaxeer waa ashratu malikiye waa di sant aussi daayira amal gannaaw bi ma limee bi ma sante autorité yi ak daayira gi ay këri diine yi ak famille religieuse yi ni ñu koy waxee maa ngi jox kàddu gi Serigne Yaali Diagne bu wax ci jëmale ci daayira jumelage yi. xam naa ñu sof suñu wax rek ci ndigalal kilifa yi wax léegi ba bàyyi incha allah sof suñu wax rek ah, ci kàttanu yàlla ñu sof ci membre yu jumelage yi nga xamante ni ñoo nekkoon ci tous les dal yi nga xamante ne ñoo doon recevoir gan yi muy wàllu école yi ak yenn kër yi. ñu jiital ca daayira Ngana gu ndaw Serigne Mbaye Sall ne ca bopp ba Modou Cissé Paar Ali Dieng Badem Dieng Pape Diagne Badem Diagne Bàcc Cissé Baxdaar Serigne Cissé Ñeem Cissé Moustapha Diagne Daara Diagne Mor Gueye ca Bël Asiratu Malikiya Cheikh Sarr ne ca bopp ba Baba Mbodj nekk ca Njang ak ñam àndal ñëpp Bas Gueye ca ginnaaw ray Moustapha Dia ca Kayib ja Birane Sarr Ndimbu Ndaw Magat Ba kër Jaaj kër Mor Brahma Abdou Cissé ca baqaya ngay ibrahima dia and ko ibrahima dia ak fatou mbay dia moustapha ndiaye kër sayer ci la ak waa sakkal ak waa kër ngunta ñëpp simulaas ba daa simulaas yor waay diop simulaas bu soroloo ca yajana nga xam ne tabarakallahu moom ak waa makka diop ak makka mbuubeen ak la ñu wër lépp nga xamante ne ñaar fukki membre la ak xane bu gi lañ dugg ci gi dugal yanu ak Ranselé rek la ñuy liggéeyee ñu ngi leen di sant di leen gërëm yal na yàlla taxawu leen mbay nga xam ne tabarakallaahu ñaar fukki at ak nangam ci ren yoo xamante ne bii ni mboolem génération bi mu àndaloon yëpp retraité nañu waaye moom ba léegi moo ñàkku gàmm gi seere ak ñu muy àndal ñu ngi koy sant di ko gërëm ak ña mu àndal ñëpp ñii nga xamante ne bii ni ñoo ŋànk école yi école tabarakallaahu teeru gan yi teral leen dal leen seen ànde ñu ngi leen di sant ak mboolem daayiru Chimelaas boo xam ne yaa ngi ci tund njaambur yi ku ñu tudd ak ku ñu tuddul ci góor ak jigéen sant nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp yal na yàlla taxawu leen ci biir taxawu leen ci bitti ñu yàgg a taxawu gan yi yàgg leen a teeru wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ah defe naa ngërëm yi fi jot jal jàll tàmbale seen baara jaar ci Serigne Yaali jaar ci Mouhamed Ibrahima Sy defe naa ne eh, lim nañu li nga xam ne moo wëroon gàmm gi. ñoo yoroon gàmm gi ah gàmm gi nag dafa yaatu yaatu goo xam ne boo bëggee sant xam naa da ngay sant ñi nga ñi nga mën a jàpp rek waaye mënoo sant ñëpp waaye nag képp koo xam ne kii dugal nga ci sa loxo rek ñu ngi lay sant di la ñaanal yàlla luñ ci am yal nañ ko bokk yow rawatina nag li nga xam ñi nga xam ne ñoo lancé gàmm gi man ñoom lay jëkk sant muy mi nga xam ne ñoo yor média yi rajo yi ak télévision yi ñooñu su gàmm gi àggee fenn bañ mën ko dégg wala ñu mën cee wax dara rek ñooma te am na ñoo xam ne ñu ngi tëdd seen i lal dara rawu leen ci gàmb gi direct lañ def gàmb gi ah, na nag suñu xarit Cheikh Fall moom du yëmale ko ci gàmb gi kese lu xew ci kër gi rek ñoom ñii fi nekk ñoom ñetti télévision yi daal wala ñeent lu xew ci kër gi ñëw nañu def ko lañ ko war a def rawatina nag ñi ngi sant nag jigéen ñi nga xam ne fa tabaaraka ñooy jigéenu xudaam ak jigéen ñu ñu ko àndanteel muy daayira yi ñoom day gàcce gaalaama Cheikh Alhaaji Maodo daan wax ne su ma geesoo gisuma jigéen ñi rek dafay mel ni sama xel du dal waaye bu ma gisee jigéen ñi rek du ma ragal dara sama xel day dal ndax lu ma song dinaa ko daan kon jaaraama jigéenu xudaam jaaraama jigéenu Cheikh Seydou Mamadou Moustapha defe naa Cheikh Seydou Mamadou Moustapha newoon na jigéenu yon ñewant yonent bi sallallahu alayhi wasallam jigéen sëñ Babacar moo ko fudli jigéen sëñ Babacar mooy sama jigéen ñi ba léegi kon loolu jógul fii soxna dama Diop ak ñi mu àndanteel ja jàmbaari fàkk tëdd lañu lépp lu war ci gàmm gi def nañ ko def nañuy bernde nit ñi lekk nañu ñi ñuy sant nag dëkk bi yëpp Louga ndax ku ne xam ne Louga gépp ubbi seeni kër ubbi seen i néeg lal seen i lal dalal gan gunge leen jàppale leen ba gan ñi départ ñibbi kon Louga gépp gépp gépp amel nañ leen cant ci làmmiñ Cheikh El Hadj Mahamadou Mansour ak làmmiñ sëñ Aline Guèye mi nga xam ne moom la teg ci bopp bi fa tabaarakallaahu sëñ Aline Guèye ñi ko dar di ay jàmbaar yoo xam ni munu ma leen a bañ a tudd ndax man lam yaskuri naasa lam yaskuri laaha gis nga euh, sëñ Moustapha Dia sëñ Daouda Ka sëñ Khalifa Mbaye sëñ Khadam Cissé ñooñu ñooñu bu ñu génnee woon seen loxo ci gàmm gi rek gàmm gi daanu du dem ndax ñooñu kenn ku nekk li nga def ci sa kër mat na gàmmu kenn ku ne def nga ci sa kër loo xam ne li mat na gàmmu fa tabaarakallaa ñu ñoo xam ne dañoo épaulé sëriñ aale ànd ak moom di ko déglu rawatina nag doomam xaritam soppeem ak soppeem sëñ Moussa Badio muy daawud ak daawuda ñaar ñooñu moom fa tabaarakallaa dama leen di beral cant spécial ndax bu leen neexoon def ne ne membre du bureau rek lañu waaye lépp lu ñu am def nañ ko ci gàmm gi lu ñu ku nañ la ku ñu yaakaar woo nañ la ne la ñëwal def ci te lu ñu def ci gàmm gi def nañ ko ci gàmm gi fa tabaarakallaahu yal na yàlla yokk seen i yal na yàlla yokk seen wërsëg lépp bureau bi nga xam ne ñoo épaulé euh, gàmm euh, union bi itam secrétariat bi Ibrahima Sy ak jàmbaar yi nga xam ne ñoo ko épaulé ñoom Bakary ñuy doxal fa tabaarakallaahu lépp lu war def nañ ko wutuñu ci dara yaakaaruñu ci dara liggéey rek ngir yàlla ba mu pare ñu dem ñibbi kon nag defe naa ne Cheikh El Hadj Mamadou Mansour li mu bëggoon yàlla defal na ko mooy gàmm gi réussir gàmm gi réussir na bu ñu la joxee mbir mu réussir te ña la ko jàppale ñëpp muy dëkk bi dangay boole ñëpp cant gi kon Cheikh sëñ Ali nee na mi ngi sant képp ku dëkk ci Louga rek di la wax mi ngi lay wax alhamdulilahi rabbil alamin di la ñaanal yàlla loo man ren yàlla na nga mën fukkam déwén fukkam yàlla na nga mën wala junneem déwén jigéen ñi ñu ngi leen di ñaanal yàlla lépp lu ngeen bëgg yàlla leen ko yàlla defal ah fa tabaarakallahu defe naa xalam ko dajul suuf mu ne la lim ñëpp waaye bu ñu tuddee ku mel ne sëñ Aline gi ci dëkk ci Louga mën naa yóbbaale lépp loo xam ne wàllu diina la ci dëkk bi bu ñu tuddee ñii ñu tudd ñoom sëñ Moustapha Dia tudd ñoom sëñ Daouda ñoom Xaddam Cissé ñoom Khalifa Mbaye Khalifa Mbaye jàmbaar joo xam ne dégg ngeen xam-xam bu rëy bi mu def ci tànt bi ñëpp di ko coow fa tabaaraka yàlla na yàlla barkeel xam-xamam ñii bu ñu leen tuddee rek yóbbaal nañ Louga gépp ndax ñooy doomi soxna yi yóbbaal nañ doomi soxna yëpp ndax fu ñu waxee doomi soxna yëpp la ñu waxaaleel fa tabaaraka yàlla na yàlla guddal seen fan ca ka maire nga xam ne moo fa tabaarakallaa moo fa nekkal Cheikh moo Hadj Maodo Mansour jiite daayira fa nekk taxawaayam gis nañ ko ndax fa ba ñu ko waxee lépp lu war ci gàmm gi lu mu ci war a taxawee rek taxawee na ko El Hadj Codé ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla na nga yàlla guddal sa fan sëñ àll gi kontaan na ci yow sant na la union bi sant nañ la gërëm nañ la yàgg ñu ngi àndal ñëpp. di ziare képp ku fi teew ak képp koo xamante ne yaa ngi dégg suñu kàddu wala nga ñuy seetaan sunu mbégte rek ci gàmm gi li nga xamante ni kàddu yi jiitu noonu la làmbee ñëpp ñu yëngu ci wàllu gàmm gi euh, fa tabaarakallaahu kuñ ci xam ak kuñ ci xamul euh, Cheikh Seyd Mouhamed Moustapha Sy radiallahu anhu dafa waxoon sëñ Maodo ne ko boo demee na nga woo euh, jullit ñëpp tiijaan murit ne tekk ba ci ñi dul julli sax ndax ku ci def jëriñu kon njëriñ loolu fa tabaarakallaahu yàlla na làmb ñëpp mu mel ni rek xanaa ñi ngi ciy mottali muy ñi nga xamante ni Euh, ñoo doon tas euh, des yi tas image lu melne daira asfiya euh, télévision asfiya télévision malikiya tv demé nek fa tabarakallah seen web ñomit sen taxaway ak ñu fekk ci dëkk bi nga xam ñun ak ñom benn lañ ñu ba TV luga TV DB TV Tilleen TV Jo Pro TV Luga Production rajo Carrefour rajo la ak rajo Njambur FM ñoo ñu mënuñu leen a fay yal yàlla fayal leen boppam kon su ko defee rek euh, mbirum yàlla la mbirum euh, yenent bi la mbirum Cheikh Seyd Mouhamed Moustapha Sy gàmmu gi am na ñoo xam ne buñ nee neex na rek kontaan nañu gàmm gi neex na ñëpp daañu kontaan te sëriñ bi nee na gàmm gi neex na gaaw bi nee na kontaan na kon gàmm gi neex na ñëpp kontaan nañu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 لابد من شكوى إلى الله كربتي ما لي غير الله جابر كسرتي